koo leeral dafa am boroom xam-xam bu wax ne annaasu kulluhum halka illa al na wal aalimuuna halka illa al muxlisuuna wal muxlisuuna ala qatrin azim boroom xam-xam bi daa wax ne nit ñëpp alku ñu ne déetawaay mu ne nit ñëpp alku ba mu des jàng ñi ñi jàng xaw a dalum xel mu jàng ñëpp alku ñu ne ko déetawaay mu ne ba mu des ña koy sellal ba mu des ñuy jëfee la ñu xam ñuy jëfee la ñu xam xaw a dalum xel mu ne leen yéen ñiy jëfee li ngeen xam sax da ngeen alko ñooña tiit lool ne ko déedwaay mu daal ne ba mu des ñay sellal ñay sellal xaw a dalum xel mu ne leen yéen yéen a ngi ci danger waaye wax loolu ba noppi wàcc ko fa faatu kooku amul pédagogie bu amoon pédagogie buñ ne woon baas baa ngi lakk dinañ la wax fi fii ngay jaaree ba lakk gi du la laal oto sax ñu ko tubaab yi buñ ko liggéeyee dañ ciy def ici foo xam ne buy lakk fa ngay jaaree génn waaye ki la ne yaa ngi ci danger ba noppi waxu la nooy génne ci danger bi faatu bàyyi la fa kooku amul pédagogie waaye borom Tuubaa la ciy génne demal ca matlabu sifaay wajaal jamia al ulamaai amilin wajaal jamia al amilina muxlisin wajaal jamia al muxlisina zahidin wajaal jamia zahidina nasahin wajaal jamia nasahina saadiqin wajaal jamia saadiqina faisin foofu lañ bëgg a àgg mooy résultat ñee dañoo yem ci àggalewuñ ko borom Tuubaa day àgg ak yow ba ci résultat mooy fawsu te moom la nit ñi di wër moom la borom Tuubaa di àgg ak yow kon borom tubaa dafa am lu lu ak jagle jagle gi mooy fi gars di yem ak yow sëñ tubaa du fa yem ak yow day jàll ak yow ba foo xam ne fii ngay xamee ne lii la taxoon a wax ne nazaali siha sihaaw xayril baraya xaari bi safin wudi wadudi sëñ tubaa nee na xadiis yi yenent bi lépp dañ ko bijji teg ci sama loxo man sëñ tubaa ndax xam-xam yee fi nekk xam-xam boo xam ne jàmm bi da koy jàng ngir xam li muy fas ci digganteem ak boroomam sëñ tubaa nee na xam-xam boobu yàlla yëkkati na ko teg ci sama loxo ilay rabbi salaba tawhida wa anrida rabbi yàlla ahida mu des xam-xam bi nga xam ne da nga koy jàng xam ni ngay jaamoo sa borom muy fiq sëñ tubaa ne lii jaada maabudiya bi tafaquhi wallahu rabbi al alimu faqihi mu des xam-xamu tasawuf mooy rafetal sag jaamu yàlla sëñ tubaa ne ibadati ahsanaha tasawufu wa anna aadaa'i siwaaya qawafu mu des alquran sëñ Tuubaa ne liya kitaaballahi rabbi salaba wa min siwaaya abadan lan yuslaba mu des hadis sëñ Tuubaa ne madda ila kulliyatil hadisa man qaada li tawila wa tahdisa annahu wala arudu wal bayaanu lii sulibat wali biha ayaanu xam-xam bu ñuy jaam di tudd di ko laal sëñ Tuubaa nee na yàlla yëkkati na lépp tekki sama loxo man sañ Tuubaa te doyuma ko dara xam-xam yi jaam ñi di njëkkantoo bokk na ci fiq fiq dafa am ay pàcc-pàcc muy ay ngir am na ngirum imaam Malik amna ngirum Shafii amna ngirum Ahmad ibn Hanbal waye dafa bok ci li borom tuba di dimbale moy jam ñi dañuy wax ba dem am luñu faté yàlla nak day mel ne da ko fay bàyyi seigne tuba bu seigne tuba ñëwé bu ko laalé gaay xamné ndekete li amon na waye kenn xalam du ci dem fek seigne tuba ñëw imam malik ak Shafii Ahmad ibn Hanbal xamone nañu ne ay borom xam-xam lañ waye kenn mësta xamné ndekete dañuy barkélu ci seeni tour ndekete ay walu yu lañ seigne tuba ñëw daal ne bi malikin wa Shafii wa abi xanifatin wa ahmadin listajib yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb malik gaa yi taxaw daal ne ah ndeke malik am na barke ba ñuy ñaan ci barkeb loola borom tubaa ko mësa laal kenn mësu koo tudd doo gis ci téere yi kenn ku mësa wax ne maa ngi ñaan yàlla ci barkeb malik dañoo jàpp ne malik benn borom xam-xam la sëñ tubaa nag ñëw barkeb malik bi kenn laalut mu ñëw ne yàlla may ma ci barkeb malik yàlla may ko ci barkeb malik lu kenn amutoon bi malikin wa shafii wa abi xanifatin wa ahmadin listajib sëñ tubaa ñëw topp ci ñoom seen ginnaaw a'immati fil fiqhi malikun ali wa shafii wal hanafi wal hanbali xam nañ ne kenn mënta nekk ci ñeenti ngir waaye sëñ Tuubaa nee na man ñeenti ñépp laa boole dambeenoo ñeenti ngir yépp laa nekk ngarale sama tànk fu ma ci neex tibb jëfee te kenn doonu ma done ma lan moo tax waaye woyof googu mu woyof ba sëñ Tuubaa mës naa woon naar bu tudd Muhammad ibnu Abdurrahman al alawi dëkkoon ci bokkoon ci naari gànnaar yi yaakaaroon sëñ Tuubaa jébbul woon ci moom sëñ Tuubaa dafa yeb daf ne ko demal gànnaar maay téere bu mu bind ci ngiram jënd ko andil ma demal demal demal demal Égypte na Maalik téere bu mu bind jëndal indil ma Shafii yu téere bu mu bind jënd ko indil ma Abu Xanifata téere bu mu bind jëndal indil ma Alxanbali téere bu mu bind jënd ko indil ma naar bi dem sëñ Tuubaa ko yebal ndax sëñ Tuubaa daa wax borom daarul mati ne ko biig ci guddi day damaa tëdd gént borom ñeenti ngir yi ñu taxaw ne jàkk di ma xool ma xam li ñu bëgg dañoo bëgg a feeñ ci sama liggéey bi daal ne borom jox naa lay ndigalal nga fexe ñoom ñeent ñu feeñ ci liggéey lu leer la boo demee ci téerab al nafaatul miskiya fil xawaariqil mbakkiya naaru gànnaara ko bind da nga ca fekk lii may wax du xise yi ñuy farantu génn góor nee na ca njaari moom du ko netti lu leer la ndéem léegi weddi gi daa bari la wax ñu ne xise yi daa bari te xise yi ci alxuraan la gën a bari wajaa rajulun min axsal madina ten ci alxuraan naanu naqussu alayka ahsanal qasas ci alxuraan xise yi moom alxuraan ko njëkkee xise yi alxuraan ko njëkkee sëñ Tuubaa daa di wax borom daaru ne ko demal nga daa di wax naar boobu na dem Égypte jëndal may téere jox ko alal ju doy nar bi dem jënd ñent ci ñent ngir yëpp andil ko sëñ tuba bi mu ñëwé da jox sëñ tuba téré da di talif way ko nako khuzha dafatira la yaqafu jalisuha khata al lisan wa zallat al murtaabi fashrab hani'an kull safin baridin yashfi sadam min bahri kull kitab unzur tasaanifa sarifil murtada alshaafiiyi xulaasat al aqtaabi walhanbaliyi aqattuqaa xuz kutbahu wa shaafiiyi xulaasat al aqtaabi daan na ko jàppal yow dong yaa ko mës a def buur mësu koo def wala yu mësu koo def kenn mësu koo def kenn mës sa dajale borom ñeenti ngir yëpp seeni téere ci sa kër yow borom tubaa yow donc yaa ko mës a def ba mu defee loolu jël téere yëpp moom borom tubaa jàng ko ba ñeenti ngir yëpp sëñ tubaa mokkal ko peeg ko loolu la ci sa borom tubaa wax ci masala du dëñ borom suñu borom wëlbatiku ne ko ñeenti ngir yooyu lu cay secret may naa la ko lu ca Malik sañoon sañ nga ko ci lu ca Shafii sañoon sañ nga ko ci lu ca Abu Hanifata sañoon sañ nga borom tubaa bind ko warastani fiqhal imaami maliki alayhi ridwanul aliyil maliki يا خير قائد حميد حمدا ورثني فقه الإمام أحمد نفعتني وكنت بالمنافع وقلت لي فقه الإمام الشافعي قد قلت لي منك منا لطيفة ورثني فقه أبي حنيفة borom ñeent ngir yépp li ñu dajale ci ngir borom tubaa jël ko teg ci loxoom suñu borom jël lépp teg ci loxoom suñ tubaa suñ tubaa di ko doxale noonu xam-xamu borom tubaa borom xam-xam yee ko nangu ndax réew mi loo wax ñu ne kan moo ko wax boo tuddee am naar ñu d'accord waaye boo tuddee ab sénégalais ñu complexe duñ d'accord Yusuf ibn Ismaïl an nii borom xam-xam yi xam nañu ko moo bind téere bi ñuy wax jaamiu karamatil awliya sëñ Sambay dafa wax ne maa ngi jéggalu ci yàlla du ma àtte benn borom xam-xam ndax balaa ngaa wax nit ki ndabam li ca nekk da nga koo tiim comme ki nga xam ne moo bind téere wàllu yu yëpp dajale leen kon kooku xanaa daa tiim wàllu yu doo koo mën kooku ci boppam moo nangu xam-xamu borom Tuubaa muy yusuf ibn ismail annabahani moo ko sëñ tubaa suñoo gisante ci zaay day tagg yonent bi di tagg yonent bi ba benn bis mu gént yonent bi ne ko xanaa li ma la tagg kenn mosula koo tagg yonent bi ne ko waroo ngi lay bëgg dugg ki ma dàq tagg ahmadu bamba la tudd tubaa la dëkk mu tëdd guddi sëñ tubaa wan suñ borom wan ko yonent wan ko sëñ tubaa muy laajte di laajte ba xam fu sëñ tubaa nekk mu jël ñaari téere benn ba al anwarul muhammadiya la beneen ba teewlootuma ko daal di koy yónnee sëñ tubaa bi sëñ tubaa yeblee ñaari naari gànnaar yi ñu ajale ko makka dana leen na ngeen jaar Bayrut nuyul ma Youssouf ibn Ismaïl nee leen ko jot naa ca téeréem ya te mook sëñ mook yonent bi mook Youssouf ibn Ismaïl mosuñoo gisante fekk Youssouf ibn Ismaïl jamono yooya day gor soo xam ne rus naa lépp rus naa ñaan yoru ñaar dërëm dab dépasse am jeex sëñ Tuubaa ne leen bu ngeen demee jox leen ko alal ji boobu yëg na ne Youssouf ibn Ismaïl moo ngi banque te as gor la du ñaan du lépp bi mu ñëwee jox ko alal ji Youssouf ibn Ismaïl daa àllu jël xalimam way sëñ Tuubaa xawaa njaareemu uluman للإله وفضلا لا يمن وفضل الغير ممنون هو القديم الذي لولاه ما سجدت على الجباه ولم تقرأ به نون إن امرؤ فاته المختار من مدر وفاته أحمد المختار مخبون dafa wax ne di dund ci jamono sëñ Tuba yenent bi raw la mën naa koo nangu ndax nit du tànn jamono jëmee juddoo waaye di dund ci jamono borom tubaay dund ci jamono nga faatu te jëbbul woon nee na yaa torox sëñ ba jaxata feelu ko daal ne ka perte moo di ka bokk ak bamba mi jamono di dégg kay gis ba xëy dee nag te jébbaluwul suñ ba jaxatee ko wax nee na ka moo di ka bokk ak bamba mii jamono di dégg kay gis ba xëy dee nag te jébbaluwul te xam-xam boobu sëñ tubaa yemul ci sëñ ma jow paxa sëñ ma jow paxa daa dégg ñuy tudd sëñ tubaa di tudd borom xam-xam mu ne leen loolu dafa ëpp ahmadu jaw jawwun wa taxta wa fawqahu sama wal ardu taxtal jaw yi laa taxta sama bala ngeen laal sama waa ji borom Tuubaa kooku asamaan la man maay jaww ji bala nga àgg ci asamaan laalal jaww ba noppi yéen yéen a ngi ci suuf maay Ahmadou Jaw njëkk leen maa laal njëkk leen laal jaww ji balaa ngeen a wax asamaan njëkkee leen ci man man Ahmadou Jaw paxa ba noppi daal di wax ah man may malikun nuxaati wal yi man Ahmadou Jaw paxa am ko ñëw ci moom di di bàkku naan ko man sérif la mu ne ko limal say maam mu commencé lim lim bi gudd lool mu ne ko dafa gudd taxawal mu taxaw mu ne ko Ahmadou Diop paxa Ahmadou Bamba rasulullahi léegi na a gaaw sëñ bay jaxate feelu ko ne ko sëriñ bi nag moo nu jur yónneen ba jur ko bu wér sunu cër yi fa ko wér noo jub te jufu naaw sëriñ bi nag moo nu jur yónneen ba jur ko bu wér cër yi fa ko wér noo jub gànnaar ba waxoon sëñ Tuubaa ne ko wa in addal kiraamu lahum juduudu bi yowmil faqri kaana abuka taaha abuka shamailan wa abuka shar'a fa nahjul asbahi lisa law laa kataaha yow sëñ tubaa bu yowmal xiyaamee jaam ñépp ku nekk naan yenent bee sama maam ku nekk di wooy maamam yow yenent bi yow dong lay nangu nga doon sëtam ndax ngiram mi bi mu naree dugg ci kàmb yow dong yaa taxaw génnee ko ca kàmb ga ñii naan ay sëtam kenn defu ko ci loolu ab naara ko wax te sëtu sëtub yenent bi la moo ko wax sëñ tubaa sëñ tubaa yitte woo woon xam-xam foo ab téere nekk sëñ tubaa jënd ko sëñ tubaa daraan daraan ñëw ci moom indi téere mu jënd ko ci yow nga xëy même téere bi nit ñëwaat di ko jaay sëñ tubaa jëndaat ko nga xam ne xam-xam ci boppam ku bëgg a ñëw ci sëñ tubaa doo dellu loxoy kese indil téere jaay ko sëñ tubaa bi muy dem gànnaar sëñ tubaa benn téere topp ko amul benn téere boo xam ne sëñ tubaa yóbbaale na ko gànnaar téere bu xam-xam daa am ci taalibe yi ku ne ko mbàkke sa téere yi dadul demam mu ne ko téere yi du dem lii andi téere laa yóbbaale gànnaar lii andi téere waa ji déggul ko sëñ tubaa wax demee toog am kuñ ne daa mën a bind mu ñëw sëñ tubaa yëkkati gaalu gi yëre jox ko yëkkati xaalis bu bari jox ko xam nga naaru gànnaar daa bëgg xaalis kooko daal di dem la mu am ci téere lépp mu sotti ko ñëw andil sëñ tubaa gàdd yëpp mu war ko téere fa nekk yëpp mu sotti andi sëñ tubaa yàggu dara sëñ tubaa xajatut fi mu nekk ndax téere yi mu ne nañ takk geneen xayma dugal ca téere yi ba mujj xay téere yi daa bari ba ñu wutal ko xayma boppam sëñ tubaa woon kooko ne ko lii laa la wax lii andi téere laa indaale moo tax andi moobu téere sëñ tubaa li ñuy tuddee ilmu ilmul arabi lu al luxatu luxatu ilmu luxa muy muy muy xam-xam bi nga xam ne moo lay jàngal boo tiimee alxuraan mën a xam li muy wax sëñ tubaa dafa am bis am ku koy laaj lu tax sonne woo ko fekk sëriñ bi sax sonne na ko waaye sëñ bi da ko tont ne ko kalaamul arabi tariqun wal quraanu qaryatun wa man wasala ila al qaryati fala yaxtaaju ila tariq dane ko alquran ab dëkk la langue arabe yoon wuy jëm ci dëkk ba la waa ku yeewoo ca dëkk ba looy doyee aw yoon man ca dëkk balaa laay yeewoo man ca dëkk balaa laay yeewoo moo tax doyewu ma dara ci yi di nga mën ko dee te kat li ñuy wax loo al luxal arabiya sëñ Tuubaa ko gën a dégg ñëpp ki ñuy wax ibnu malik nga xam ne moo bind téere bii ci naxu muy junni bay sëñ Tuubaa dafa wax ne bis dafa yeewoo mag wax mag ñu ne leen ibnu malik moo ma dikkal bi si guddi bi mu ñëwee li ma wax mooy dafa yéemu ci sama benn bayit ni mu làmboo maanaam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah da cee yéemu ba ñëw di ma ndokkeel man sañ Tuubaa te te Ibnu Malik borom xam-xam yi nax wu yëpp moom la gën a naw moom daa naw borom Tuubaa ba ñëw di ko siyaar si wajutal bi tamkiini war rusuuqi wa quttalii mawaahiba suyuuqi wirasatan min ka ilayya lil jinaan wali siwaaye yantahi dayqu zaman daane sëñ Tuubaa suñu borom may na ma may góor yàlla yëpp man sëñ Tuubaa dajale naa ko yore Cheikh Ibrahima Diop al-Mash'ari ne sëñ Tuubaa fa an xayri xalqillaahi yarwi xadiisahu ويأخذ عنه للعلوم سنية خذوا عنه من بحر العلوم تريها ولا ترتدوا عنه لهم القديمة فما ورقات الداخلين سفينة بمغنية عنهم بعيد سفينة سيب رامي جب المشاري نانا سنتوبا دعني جس كوي نتني نان لا ديو نانا ديو نانا كو ديو نانا كو مجيلة بخاري مجيلة مسلم سنتوبا نه سيب رامي جب المشاري نانا سنتوبا دو جيلة بخاري دو جيلة مسلم ينتبي تبقى من ده يمبلغي موكاي وح مني وح yenent bi ci boppam moo naan sëñ tubaa dama ne sëñ tubaa naan ko mane mu xëy mu xëy di ñu ko nettali daan ne jël leen ci jën yu bees yii sëñ tubaa yore te bàyyi géejug daaw gi ngeen di dunde daal ne jël leen ci yàpp wata boor wii sëñ tubaa di dundee te bàyyi si sëñ tubaa yore te ngeen bàyyi muusal bi ngeen di dundee moom Cheikh Ibrahima defal na solo daal ne li lay xamal ne booy dundandoo ak borom tubaa lii borom tubaa indi mooy li valable nee na ni mu la koy misaale mooy yow mi dugg ab biis ñu jox la nga dagg ticket bi ngay ñëw bi ngay dellu ne doo daggaat ticket ne ne ticket bi nga yoroon ci ngay ñibbi nee na di jamono borom Tuuba ba noppi di topp keneen noonu la mel nee na dugub dugub biis jëndub ticket bëgg cee dem bëgg cee dikkaat nee na jamono teg borom Tuuba ba noppi di déglu keneen noonu la mel ki ñuy wax Abdullahi Salim ab naar la bokk na ci ñuy seedee xam-xamub sëñ Tuuba day xool sëñ Tuuba ba yàgg nekk ci kër gi addee day ñëw ñu ne Cheikh Modou Moustapha ko indi mu ne Cheikh Modou Moustapha lu mu doon ci sëñ Tuuba ñu ne ko doomam la ñu toog ba yàgg addiyee Cheikh Massamba ñëw mu laajte Cheikh Massamba lu mu doon ci moom ñu ne ko rakk la ci sëñ bi te day joxe addiye ñu toog ba yàgg addiyee borom daarul moo te ñëw ay saakoy dugub yu ñu bay mu laajte lu mu doon ci sëñ bi ñu ne ko rakk la ci moom mu ne kii ndekete rakk ak jàmbureeyam ci moom ñépp koy liggéeyal xaaral ma jug liggéeyali ko jël xalimaam ne sëñ Tuubaa ahmada inna la naodd lakum misla walam nastaqim law laa tariqatuka al musla yow sëñ Tuubaa ñun de dofuñu balay sàkkal maas dofuñu balay sàkkal morom te xam nañ ne bu dutoon ak yow ci guddi la dëkk duñu xam bëccëg nu mel bu dutoon ak yow lu naqari la dëkkee duñu xam lu neex nu mel wala tabatil busra wala azzaman zulla nee ko bu bu dutoon ak yow baadoo la ci baadoo la lay faatoo baadoo la du xam teraangay dund daan na ko tadallaata min awlmi shariati nachian fa lamma an istawabtaha al aqla wa naqla takannafa kal waasuuna min kulli wijhatin waraamu lakum xitlan fa bikum xitla daan na ko yow sëñ Tuubaa bi nga tolé ci jang xam-xam nga fess del ak xam-xam nak ñëpp juk nak añaanee la ko bëgg la ray waye bañ la ray da ne la def sa soppe ba la ndax sa soppe ba jëm nañ ko ray waye dara wu ca rasulullazi faqa samawati arshuhu wa tahta sara wal farsi sultanuhu jalla Lol day mel day depp ak waxi señ bay jaxate jamuy wax naan ko magad bu wér man baj gawel sama ndënd mi te kañ nak borom touba ki xey boole daan ba fóoree ki kaañ ak ñépp ne jàng fii jariñ mu seexal ku jàngul aw xaraf ñu ne moo fi daan ba boori tuba ba boori wolof ne lii nu yor ku ci bañ du wéy mu faf teggi leen ak seeni yëf ñu bokk ne moo fi daan ba wàllu yi yàlla ne bunti yàlla ñoo ko yor mu faf dox fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan ba ba ba boori tubaab it ne ñu mos ji ñoo ci des mu yëm mu ne gar fi yépp dem ñu bokk ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaanaana na ngoogulu yàgg daal naar bi ñu wax cheikh mahamadul fadal dafa tagg sëñ bi wax ko ne ko an nahwu wal lughatu inda al arabi wal juudu wa saqaau inda al kurabi chiimatuhum fa jaahum zurrutabi ahmada bamba man ala birrutabi najli habibillahi zut addubi fa salaba aljamia aya salab minhum fa saaru maahu kalqusubi illa ashratu nabi al anjabi ahmada bamba ya aqa taxarrubi afa yaxillu laka zulmu al arabi باخذ نحوهم واخذ الادب واخذ جودهم بغير بغير ودب يا عجبا من صالح مهذب يظلم اهل العلم اهل العصب ومع ظلمه لبعض العرب نال من النبي كل عربي دا وخ سنتو نكو يو احمد بام يو ميغا خامن ياي بوروم ندوخاندي موغي يا دكو سي ريوي بوكو سي ناري وايي داغا نييو في ناري غنا نيك بوين فور ناري غا نييو غاني لن فا موي انحو wal arudu wal bayaanu lii sulibat wali biha ayaanu daan na ko naxwu ak arud ak bayaan yow sëñ tubaa dangaa ñëw mën ci naar yépp waaye sëñ tubaa moom bu ñuy wax wàllum xam-xam da cee soññ ab taalibeem bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ba Cheikh Awa Balla Gaye day faral di wax ne ab sénégalais yenn saa yi day tiim lu weex mu leer ko ne lii lu weex la waaye benn waaye jógee fee ne ko lii weexut daa ñuul nee na mu dofe topp ko ca gëm ne lii daa ñuul nee na mooy dañoo gëmloo ñépp ne murid yi jànguñu te bis bu nekk ñuy gis murid yi di defi conférence bis bu nekk ngay dem ci collège yi di daje ak ñoom di dem ci université di daje ak ñoom nee na xanaa loo dofe dofe dofe nga war a xam ne ñii nag am na fu ñu jàngee xanaa xëy ñu xëy rek di toog ci collège di toog di defi conférence kon xam naa dañuy yem foofu daal di jàll ci mos ans lëf ci xasida yi xasaa yi di sëñ tubaay moom li ma ciy wax waxtu wu nekk damay wax ne xasaa yi di sëñ tubaay yi bu sëñ tubaa yoroon logique gu tubaab baadoola du jàng xasida bu sëñ tubaa yoroon logique gu tubaab baadoola la du laal xasida ndax fi mu ne iPhone bii huit cent mill ak nangam lay jar mën nga cee jënd ñaari écran plat te pourtant écran plat moo ëpp iPhone fuuf waaye tubaab bi logique am mooy lii moo ëpp njariñ lii moo gën a lix lii laa ko la koy jaayee xoolal xasida yi sëñ tubaa yi li muy li muy def ci nit yemu teg yow àdduna وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة yow yàlla sama xasida yi ku koy jàng leeralal ab xolam sellal ko yow suñu borom defal ci moom ak leer ba mu mujj baax baax goo xam ne ndeyam ak baayam du ñu xam kañ la baax ay mbokkam du ñu xam kañ la baax dañuy xëy na gis ko mu commencé soppiku di am yu muy jombale boppam yoo xam ne daawu ko jomb te ndeyam yàgg na ko ko wax waaye taxul mu ba ko baayam yàgg na ko ko wax waaye taxul mu ba ko te kenn du ñëw nan ko bàyyi ko waaye day xëy rek jombale ko boppam bu rombee ñu koy def sax du la nuyu loola xasidaa koy def ci yow te yemut ak yow fii day dem ba àll àjjana sëñ Tuubaa daa mës a woo mag ñi ñu ñëw mën a leen ku ne na nga indi xasida gi nga am te kenn indi xasida gu moom mag ñi daal di indi seen i xasida sëñ bi jàll ko ci romb jaan di ko romb ba yàgg mu ne leen dama leen a bëgg a wax fi xasida yi di mujj ak yéen xasida yi bu ñu demee ba yow ma ba ba ba képp ku koy jàng te di ko toppatoo ak di ko xeeñal gët fii ci àdduna bu ñu demee ba xasid ba nga faatu xasida yi day soppiku jëmm ju rafet toog ci sa bàmmeel di la fa xaar boo ñëwee xasida yi dalay wéttali ci sa bàmmeel te wéetaayu bàmmeel ñu bari moom lañ ragal sëñ tubaa sëñ sàmbay day wax naan guddi gi njëkk ci bàmmeel ku ko doon xalaat lu la neex defal waaye sëñ tubaa nee na kuy jàng xasida guddi googu xasida gi day soppiku jëmm ju rafet toog ci sa bàmmeel di la fa wéttali yow yow si yow yow muy jàng xasida nee na di la fa wéttali ba ñu of buftu bi fa ñuy dem di taxawalee buftu ba sëñ sàmbay nee na ñu bari bu ñu yeewoo du ñu am seen jëf ju baax lu mat aw waruwaay wu ñu war mu yóbbu leen ca pénc ma am na fukki nit yoo xam ne dañuy toggale seen jëf doog a am gëléem nga xam ne dañ koy war ba ca genn suñ tubaa nee na képp kuy jàng xasida bu bis boobaa xasida yi jëmm lay ko joo xam ne day mel ne aw fas wala waruwaay wa gën a taaru nga war ca mu yóbbu la ba fa ñu taxaw la bis pénc ba bëri waa ñoo xam ne bu ñu demee ba bu ñuy layoo dañuy tiit ba la ñuy wax sax duñ ko xam bu ñu layoo dañ leen di yey tàbbaleen sawar sëñ tubaa nee na boo naree wax xasida yi moo naan la noppil ma layul la xasida yi mooy layu ba yey ànd ak yow tàbb laa bu fekkee lii li ko mën ci yow ñu ne la jaalibatul maraqi bi 1000 francs lay jar xam nga ne jarut 1000 francs ndax luy jar 1000 francs mënta yóbbu nit àjjana kon xasida yi ku ku bu doon bu doon sëñ tubaa logique tubaab la yor benn baadoo la du duñ duñ ko jaar du laal xasida ndax luy jar 1000 francs mën laa defar ba nga jag mën laa tabal àjjana jaawartu billaay nee na boo ko mokkalee boo duggee ci bàmmeel mun karang nekkir doo la laaj te boo amee fukki dërëm ñu jaay la ko xasida goo xam ne boo ko amee boo koy jàng say noon bis buñ xëyee di faatu say noon duñ mën ci yow dara nga di ko jënde ñaar téeméeri dërëm loola te boo demoon ci sëriñ si di ko defarlu ñu lay laaj deux cent mille ak trois cent war ngaa xam ne fayu goo xasida àqam sëñ Tuubaa xasida yi daf cee soppandiku sopp soppandiku goo xam ne kenn mësta gis ku jëlee xam-xamu bu arut di ko soppandiku noonu ko Sëñ Tuubaa di soppandiku ndax dafa ñëw fekk ñu ko jiitu xam naa foofu la ñuy ñaanee muy Xasan ibnu Saabitin Kaab ibnu Malikin Abdullahi ibnu Rawaxata Sëñ Tuubaa ñëw fekk la ñu jiitu ko ci lef mi waaye rëyyite Sëñ Tuubaa rëyyite ñun ñii sëñ ko koso doo déggee benn murit bu taxaw ci baas ne ñaanal leen ma damaa bëgg a mel na sëñ musaa Ka xam dañ ne boo ko waxee ren ba déwén dañ naan diw daa fa daa fannaaw waaye sëñ Moussa Ka mu mel na moom faat boo ne damaa bëgg a mel ne sëñ bay jaxate dañ naan da ngaa fanaaw waaye mënta nekk waaye sëñ tubaa daa ñëw fekk ka ñi daan tagg yenent bi mu ne kaa boog xasaan laa bëgg a raw kooku yittam kenn xamut lu mu doon kaa boog bëgg a mel ne ñoom waaye daa dem ba boromam may ko mu romb leen wa fi madhihi jaawastu kaaban wa xasaana laqad billaahi wahdahu xadiman li xayril xalqi xattan ka xasaani léegi maag xasaan ibnu saabit ñoo yem ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ tubaa di tagg yenent bi di tagg yonent bi di ko tagg di ko tagg ba mujj sëñ Tuubaa nee na bu ma jëlee sama xalima sëpp ci daaj yi yonent bi day ñëw jël bëti woomam sëkk ci samay bëti woom di reetaan ma koy tagg mata marextu rasulallaahi sayidana muhammadan man bihi shaytaanu qad xaraja dana ilayya dunuwan xad usarru bihi bi fadli rabbin bihi lbahrayni qad maraja bu ma koy tagg day ñëw jàkkaarloog man di bëgg sëñ Tuubaa mujj bu jëlee bi bëgg a bind saafara bu sëppee xalima gi yonent bi teew mu reseté bind lu dul tagg ko mujj mu ne bu ma kenn bind looti saafara ndax du ma tas yaakaaram sëñ bi di tagg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mujj yenent bi wax ko ne ko Seydina Jibril moo wax ak moom ci bayit bi ci muqaddimaat ne ko ayaa qaadimal muxtaari laa tansa sahbahu fa man yansahum fal maduhu maduhun muqattaw yow yenent yow sëñ Tuba bul fàtte saxaabaam yi ndax boo taggee yenent bi ba tagg wa jeex te tuddoo saxaaba yi daa mel ne defoo dara sëñ Tuba wëlbati أبو بكر الصديق ذو الصديق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغرى أنبأ أبو حسن الفاروق شرواه النادر به اعتز الدين المصطفى إذ زازو أفي الصحب من ذهب ابن عفان ذا له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فقيرة نعم المجرب سنت tubaa di leen tagg waaye dane loolu doyut yenente bi ne ko ana luy doy sëñ tubaa nekk ci tukkib nasaraan si di ko lor di indi góor ak jigéen ñuy sëy ci kanamu sëriñ bi ngir naqarale ko ko naaru gànnaar bi sëñ tubaa nettali tukki bi moo ko bind sëñ tubaa ko ko li bàyyam mu bind ko neena na sëñ tubaa ne ko tubaab yi àggoon nañ bay jouer pornographie ci kanamu sëñ tubaa ngir naqaral tubaab yi àggoon nañu ci buñ buñ naanee sàngara ñëw di ko buusu sëñ tubaa ngir naqaral tubaab yi àggoon nañu ci di tux cigarette di ko buusu saxaar si ngir naqaral ko waaye muy muñ rek jàmbaar gi di muñ rek ba tey mu am lii mu am sëñ ma nekk ci néeg tubaab yi di man naqaral ma dégg ci gannaaw néeg bi koo xam ne mu ngi xaqataay nga xam ne mu ngi ci jàmm ma xëy sama yaram fasu ma ne yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nii aw ma jënd yitte lu dul liggéeyal la xoolal kooku ci sama gannaaw moo ngi am wér gi bay xa bay xaqataay man mi lay liggéeyal aw ma wér gi yaram teggil tawat ji te yóbbu ko ci ka nga xam ne ma nga lay bokkaale man mi la kennal nga bàyyi ma ma wér nee na fi saasa ñu dégg waajee onk sëñ tubaa am jàmm te kooku ab soldaar la kooku ab soldaar la li borom tubaa di tegoo bañ ko tegee soldaar ba daa onk yuuxu ca kaw sëñ ji li mbàkkeem sañ ko sa soxaay bu nett li ne ma nee ma dafa am jëmm ju sant kebe joo xam ne dafa mës a ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko tawat ju metti jii di la dal coono bu metti bii ngay tegoo damaa bëgg nga di ma nga wàññil ma ci ma tegool la ko sëñ Tuubaa ne ko ndax attan nga ko mu ne ko attan naa ko sëñ Tuubaa ne ko dellul sa dëkk nee na bi fajar jotee daa yuuxu ba waa këram ak taalibeem yépp dégg ko mu yuuxu kaw bi mu xëyee di daanu ay rab bañ andi ko ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daan ne moo ne moom day lu toll ne pepp zarra lañ ko ci teg mu yuuxu te lim ci attan kenn attanu ko ci te li muy tegoo waxuma la ab soldaar waaye koo ko teg danañ dégg kàddoom ca kaw te da koy tegoo da ngeen di wéy tawatul balaaya suuratul la waami la am ci laaya moom sëñ Tuubaa di tagg yenent bi di tagg yenent bi ba mujj mu jël ay kër yi ajjana di ko jox addiyee saxaaba yi ndax dafa laaj boromam ne ko yow suñu borom wax nga ne bépp jullit këram ajjanaam bu ca naree dem danañ ko won kërug safaraam ne ko boo jaamuwutoon yàlla di nga dem fii ci mooy safara képp ku nar a dem sawara danañ la woon sa kërug ajjana ne boo jaamu woon yàlla fii nga nar a dem Sëñ Tuubaa laaj boromam ne ko léegi yéefar yi nga xam ne dañoo nar a dem sawara seen këri ajjana yi anamu mu ne ko day gént mu ne ko damaa bëgg nga may ma ko Sëñ Tuubaa jël kër yëpp daan yenent bi daan na bi dama koy jox àddiya saxaaba yi ataytu sahbahu manazila manazila la daa jannatihi mu tayyaban lil xalada inni jaaltuha hadaya li sihab radiya anhum man xamaani an sahab këri àjjana la sëñ tubaa jël di ko jox addiyee sahaaba yi ma ne ko am pësseefu jël këri àjjana di ko joxe foo jëlee kër yooyu joxe addiya lay jafe te sëñ Tuubaa lijjanti na ko ba jox ko rek këri àjjana sahaaba yi kon borom Tuubaa ngir tënk borom xam-xam yi ñuy tudd ci àdduna ñu di boroomi xam-xam kenn ku ci ba toll sëñ Tuubaa ci wax amul ndax li ñu xam sëñ Tuubaa da koo dajale ba noppi làq xam boo xam ne kenn ci ñom xamuko ndax borom a ko xamal almu laduni bu fekke qasida borom tuba yi xam-xam bu bari bobu sëñ tuba am moko may sëñ tuba qasida mi li tax mu yéeme ma ñane fofu sëñ ko so bépp borom xam-xam buy bind da nga tok di bind ba nopi di xol yalla nangu nako wala yalla nangu ko tuba qas khalima gi khalima gi dafa am daraja khilami alayha daynu mursalin sama khalima gi dafa japp na day fay borom xale kuy fay bor booy def doo ànd ak sago xay xaraatiis yi wajaxal xaraatiis yi bii wa xalami xayra ibadatin wa xayra sullami sëñ tubaa nee na waxuma laa xasida yi waaye kayit yi may bindee xasida yi kayit yi dong jàmm yàlla gi gën a kawe mooy kayit yi may bindee xasida yi bu fekkee daaji daaji sëñ tubaa di binde nee na maa umidaa di kadima i shuhada li xasawaati man bi fawzi shahida nee na daaji may bindee xasida yi moo mook ña doon xare badar seen dereti fas ya seen der seen deret yi ñoo tolloo te sëñ Sambay nee na seen fuuritu gémmiñ yi faf ya buñ ko peese woon ak jëfi wàll yi kaamil da koy wat kon xasida yi sëñ Tuubaa yii yëpp la boole nag moom mii bind xasida yi daraja boppam doog a ñëw tax xasida yi am maqaame mi mu am am daraja ji mu am te lu jaam mën a jëf ci xasida ak wesar ak lu mën a doon jaamu yàlla goo mën a def sëñ Tuubaa nee na dafa am jëmm ju mës a siyaar si sëñ Tuubaa bi boobu Alaaji Malik moo leen yebal ne leen na ngeen jaar ci borom Tuubaa nuyul ma ko siyaaral ma bi ñëwee am ca mbooloo ma ku ne sëñ Tuubaa ba gannaaw ba ma doxee yóbbante ak alaaji Malik si ba nopp ba tey ma wax la sama waxe bopp doon na ma naqari lool ma dund ba faatu te teguma la ba sëñ Tuubaa ne ko boo amoon man lay gën a naqari nee na mu daan ne ko sëñ Tuubaa daal di woolu ci jàngkati xasida yi nee nañ yëkkati xasida ak minal lawhil mahfuuz ñu koy yëkkati min nii li man lahul wujudu wal qidam hamdun wa shukrun wa taqabbalal qidam nafaa zul baqaa'i wal muxaalafa ala abda zal qadima la muxaalafa ba xasida gi daal sëñ Tuubaa woo mag ñi ñu daje mu ne leen dama leen a bëgg xamal tey li dox sama xasida ya xasida gaa ñu baax ñi ngeen daan dégg daan ne leen ku ngeen fi mënti dégg muy taalif xasida bu waxee ci suñu borom ba nopp suñu borom day jóor jëf ji nii daal di woo ñeenti noon yi nga xam ne mooy nësadu muy nafsu seytaan hawa dunia daan leen jël leen lu ngeen am ci jëf ji yenn saa yi nafsu ak seytaane ñëw jël seen cër ci jëf ji mu jeex takk bu jeexee yàlla du la fay ndax joxoo ko ba mu lay jox yenn saa yi ñu jël mu des aw desit tey nee na yàlla du laal aw desit sëñ Tuubaa nee na man maay kenn ki nga xam ne bu ma taalifee ba ñu jóor ko yàlla bu wooyee ñeenti noon yi benn noon boo xam ne am na cër ci sama jëf amul sëñ Tuubaa nee na bu ma yëkkatee sama xalima saytaane day daw isa katabtu farra iblisu bila waqfin wala yuraali durri muqbila kon saytaane moom muuram jeex na ci mbirum sëñ Tuubaa mu des xawa sëñ Tuubaa nee na xawa nantaha lil xaqi wal xaqu diinuna bi iqdaami zi rusdin hada kulla mursali man sama banex amul jotug balak bay def bàkkaar ndax dama ko jël ko ak yalla ben yon mu jeex tak bu fekke dunia seigne touba ne aqbalati dunia ilayya qabl wa bi'tuha fa zala anil qabl wa ba'dahu anni adbarat amil amillaha li kawniha daara wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abqa manni kon koku ben bakkanam wala dara am luy yak amut amut amut amut amut amut amut fenn fumuy jar ba yakal ba yakal seigne touba kon sëriñ bi li tax ay qasidam guddi gamu waxut ñuy jàng xasiday kenn dane xasiday boppam la ñuy jàng ndax li liñ naan jigéen moo la mën a wax ki jur doomam waaye xasida ki ko bind dong nga la mën a wax daa sell sëñ Tuubaa nag nee na ay xasidaam daa sell nañ ko jàng guddi gam kon ñoo ngi tuubaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yéen a jëppoon na lii waaye ni ma ko waxee rek sëñ Koso day sunu wëllëre di sunu lépp te damay wax ne barab bii moom dama fee bokk ndax samay baay a fi nekk ñun suñ baay Aliou Diop ñoom baay Yirim aw ñoom ñëpp samay baay lañu